lu nit ñi di comparer par exemple tey yow ak sa wàllu mystique. Mm-hmm. nooy def parce que souvent mun na ma am benn xarit. bu ne ak mystique. waaw dafa am benn xarit sama benn xarit. Mm-hmm. dafa jëloon ay doomam sama benn cousin la sax. Mm-hmm. ñu jógee France ñu ñëw seetaan ci làmp ñu seetaan làmb mu gis pratique mystique bi quoi. mu ne mais mais Sénégal c'est un pays musulman ou un pays par rapport ak gars yi cest à nu ñuy dundee galaaj. léegi nag Moodu nit ñi gis nañu remarqué nañu changement boobu ah sur le plan ban comportement ngay ami wala. Modou bi waaw Modou bi. wala da ngay changé waaw. dama la bu lépp weesoo Bécaye ñun ay jullit lañu. Mm-hmm. tey nañ toll fenn ci làmb maanaam fugu jeunesse da lay yóbbaale doo xam janj joor da nga naan li làmb laaj rek da koy def mais am na fooy toll. faaw nga xoolaat bu baax a baax àdduna lu nekk tolluwaay la lu nekk tolluwaay la wax ji bari na damay romb ba muy dugg fii ne rek ah eh, oustaz eh, man béy oustaz oustaz oustaz yi ñoo ngi ci daara ja mais ba tey oustaz moo ma gënal man kat moo ma beneen lii indil li bi moo woon ko ndax moo ma gënal moo ma gënal ma ne étiquette ma étiquette leneen ah. ba tax na wax dëgg yàlla jamono ji dañuy def suñu kéem kattan di góorgóorlu si suñu diine bu baax a baax parce que le bu bu lépp weesoo maanaam nit mënoo am lu gën a rëy sa diine pour man yii yëpp yëfu àdduna la daf fiy jar jàll ëllëg yomal xëyam mhm. ma ne ko diine rek moo fay jëriñ nit waaw ah kon di nga wàññi gàllaaj non non béykat yooyu benn wax na. yàlla may lii ñu wane nii est-ce que di nga ko defati lii. yii tolluwaay la yii gëj naa ko def sax ay butéelu yii vingt litres gars yi dañ ko ci tere woon ay dix litres ak yooyu noonu. non léegi c'est autorisé. c'est ko autorisé ah, waat lii di nga ko defati. Ah, bi mun na jël yooyu litres quoi. yow yéen <laughs> li ma gëm béykat ah. làmm la dafa am culture. mais loolu laa mos a gëm gëw ma ni gàllaaj mën na daan mbër. sama gëm-gëm laay wax de waxuma gëm-gëmu keneen. Hmm. saa waay. yow mii ngembal Modou mbay mu ñëw. nga yóbbu ko fu ne mu dem. entraîné wul bu ñëwee dama koy dóor ba mu tëdd. <laughs> non dama lay wax exemple laa la ci quoi. maanaam liy jëriñ sportif entraînement la entraîné boobu kongu. gis nga physiquement nga pare ko psychologiquement da ngay pare. mais gis nga boo parewul physiquement. Uh-huh. psychologiquement doo pare. mais doo am fit. yow doo pare li nga dëgg la waaw ah oui sa talent yëpp mooy réveillé mais boo paree physiquement. Ah. talent yëpp yow sax des fois excès de confiance moom moo lay daan. parce que da nga mm-hmm. nu mu def amul muy def du ma ko daan. Mm-hmm. mais nag damay jàpp culture la ci làmb. xam naa mm-hmm. yooyu noonu. mais jàpp ma ni day daan mbër. dama ko yàgg dama ko yàgg wax yàgg. mais la nga ca daan def dootoo ko ci def. non loolu ko yàlla ca. ñaanatoo yàlla def ci loolu. daa def ci ay combat vingt million ci gàllaaj vingt millions non vingt millions loolu tuuti na bégaay ni ma woo loolu waay wallahi la azim man li ma jox sëriñ su ma ko récupéré woon tabax naa ci ñaata immeuble loolu réccu nga ko wala réccu woo ko non parce que su ma ko defal woon it su ma ci dugul woon du ma xam xam nga nit moom duñ naan balaa ngaa xam-xama di xaw laa rey balaa ngaa xam valeuru wér nga feebaroon ba pare <laughs> xam nga balaa ngaa xam valeur ñàkk jàmm ak valeuru xéewal valeuru am jàmm nga ñàkk jàmm ba <laughs> di nga fonk jàmm mais amaana su ma doxul woon ci lu bari du ma xam mais alhamdulilah sant naa yàlla xam nga ba daal yàlla daal mu ngi gën a leeral suñu su suñu doxalin wala suñu yenn démarches yi woon ci affaire yi foofu foofu bëggoon naa fa intervenir mhm. ak expérience bi ma am ci làmb mhm. mais Modou waroo jël xaalis bin la jox bin la fay mhm. nga koy nga koy dugal eh, li ma lay wax ñàkk xam ñàkk xam day dugal nit ci lu ne ñàkk xam day dugal nit ci lu ne